ngi euh, fii ci bergerie Khadim Rasoul bu son excellence Omar Sow nekk Maris 2 en face autoroute à péage wetu imprimerie Grafica waaw Cissé euh, Dia mun nañ dugg ci box yi box par box mu présenté la ay quelques sujets xam na bien vrai que nuñ présenté yëpp mais quelques sujets rek non kii bàyyi ko mu. mal bi xamna euh éleveur bu né bo gissé image bi nañ ko xam ki moy magistrat nek domi Cheikh Diop nekkoon ci président aboukan Kane euh, bergerie Galois de après mu joggé fa mu dem euh, ci Papis nya moy euh, écrit cuuj waye nak yenen jeune mal yi ngay giss ni kenen ki soudan métissage soudanais la dum la yaay ji soudanais la mu ngi ni de ci papa ji Koromag la yenen jeune mal bi aussi domou Koromag la ñom yëpp ay jeune mal yu ndaw ak ben ak ben setu costaud ñoo nekk noonu yu mu deuxième box bi nga xam ne waaw ñu ngi nii di ñëw dugg ci deuxième box bi nga xam ne fala añel yi nekk añel yi nga xam ne ñoom lañ mujj a feral ñi nga xam ne ñu ngi toll cinq six mois ñoo nekk fii waaw añel cinq six mois yi ñaari añel yooyu taxaw doomu Ibou Fall lañ euh, mais kii doomu Ibou Fall la yaayam aussi doom lañ ñu ngi cinq six mois kii doomu Ibou Fall la culul bii

yaayam surtout macha allah bu Pa Mansour Mboye toujours ñëwaat beneen box bi nga xam ne ay añal a fi ne mais yii bu dee añal yale ay njagamaar yu ndaw la ñii nag ay añal la yoo xam ne ñu ngi ay dix mois lañ toll ay dix neuf mois ah ñoom ñu ngi ni macha allah bi ngay gis ni doomu koromag la encore bi aussi doomu koromag la kii doomu amoo siis la ñebbe bi amoo siis doomu magistrat la bu bàyyi ba daje waye nak euh, benen agnel bi nga rafet bi ngay gis ni nga xam ne amul corne balé koku doomu paña la paña setu koromang la parce que francophonie mo jur ngar ngar jur euh bi aussi doomu paña la bu rafet bi euh fogna box bi mom paña moy benn doomu ngar dina la ko présenter mo ngi moy sunu mal bo xam ne sha allah dom rek lay def momit ak euh, dom bo ñi te bëggu fi te bëggu fi mi gis nga ne xamuñu dara dañuy daw rek fi ne ni ñu yëpp ay tëng la yoo xam ne ñu ngi ci 9 10 mois euh, lañ toll euh, waaye nag xam naa du ñàkk ñoom seex Anta aussi am na fi doom bu wax Cheikh Anta sa xel dem ci ado saxel dem ci Assane 2 mu ngi nii waaw macha allah macha allah même Ibou Fall aussi am na fi benn waaye toujours mais jeune mâle yi ñoo xaw a mag yale parce que ñii war nañ toll 8 9 mois ñoom it kii euh, ci Badiane waaye mbaam la jógee surtout Aziz la xaw ma doomam juddolewuñ ko moo tax mënuma ci wax lu bëri euh, kii nag moom doomu sim la Sococim nag boo ko waxee sa xel dem ci commandant Kosso Kosso moo jur Sococim mais Sococim yaa am doomu séeréer la euh, waaye nag booy bi ñu ngi koy tuddee excellence Omar Sow moom ci boppam lañ ko tuddee moom fi mu ne ni mooy suñu relève boo xam ne duñ ko fooy mooy booy bii doomu Sococim la ngi ni moo nekk ni voilà ngi ni waaw doomu Sococim la doomu Viviane la surtout Kosso la ak Pagna kii doomu Koromag la ak euh, ben setu petit ki doomu petit ki fa mo jur bi ak korom ak bi boy bi mom nit mun nané ne ci gëna nek xalé xale culul boobu waaw culul bëri ngay gis wala ay yo euh, espoir waaw euh, ñu ngi ni di ñëw dugg box bo xamné ben mal bi nga doon laaj kan moy paña paña bo mu ngi fi la nek ak quelques fomel espoir waye paña nak dafa xawa say say motax moo ko laal lu bari mom moy doomu ngar ngar doomu francophonie la francophonie doomi koromak la moom moo jur teng yu bëri ngay gis fale macha allah production rek lay def nag parce que benn femelle bu ñu euh, kii joxoon euh, Omar Sène ñu koy na jama noir jama noir boobu moo ko juróon ak ngar ngar ku wax ngar sa xel dem ci francophonie francophonie koromak waaye nag femelle bii nag moom dëgg doomu Bachir la dafa ñëw tëbu euh, doomu Bachir la boobu moom moomuñ ko daf ñëw tëbu beneen femelle bii ñëw nii ñu neen ko Ramata Daawo basketteuse Euh, moom surtout séeréer la doomu séeréer bi ñu fi yoroon moo ko jur femelle bale nag bu yéeme femelle espoir bu yéeme bale ngay gis nii macha allah moom doomu Pape Sall la kooku si sunu produit la boo xam ne dafa mat a présenté euh, ndaxte benn porté rek la fi jot a amagum xale la espoir la nii mu ngi nii euh, moo tudd Jahra kii moo tudd Jahra Pape laa ko jur Pape doomu Bachir la

kii euh, doomu malu ñaseen bi la xaw ma sax maalu ñaseen boobu ban ligne la mooy bi nekkoon Ouest Foire kii doomu commandant Kosso la bu ñu Baro kii mooy Cheikhu Baro wala mooy magu Ibou Fall ci gàttal mu ngi tudd Corridor euh, kii nag doomu Ibou Fall la encore moo nekk nii moom it euh, ñoom ñoo tekki fii fii mun naa ne maternité bu ndaw la am na beneen formel boo xam ne la mu ngi nale ëmb momit mm moo jur ak koromag dafa tëdd xam naa ñu ngi ni euh, ñew di dugu benen box bi nga xamne momit euh, box maternité la euh, té gis nañ fi fomel yo xamne ma sha allah ñu ngi nampal kii lañuy woyé yaay yaayu neige ñaari doomu balagé ñoko jur balagé bu dam jaay ki moy caatu commandant ko mu ngi tuddu Viviane ñu ngi nonu di nampal ak sen doomi nga xamne ki mo leen jur paña mo jur mbotay ak koromak ak koku di so junior ak Omar Sen. ci doomu Karkar la kar bu daam lo mo jur fomel bobu borom tank bu deng bi ki euh, setu ibu setu ki la aussi euh, commandant Kosso kenen ki aussi culul bi ngay sen ni setu commandant Kosso la moy taw euh, general Gueye Faye mu ngi ni Euh, kii nag comme ni ma la ko waxee mooy caatu commandant Kosso mi ngi tudd Viviane Viviane artiste boykat dafa ñëwoon jënd fi xar bi nekkoon mboote mu ne naa ko tuddee xar ma ne ko bii laa lay tuddee kooku moo nekk nii mu ngi nii Viviane Sidi Ndour 2017. kii nag mooy ñaari tali dafa xaw am problème moom it euh, dafa ëmboon am problème gisoo doom ji moo nekk si biti moo nekk noonu di lam topp noonu. waaw euh, ñu ngi fii beneen box boo xam ne mun naa ne toujours ci box maternité la waaye nag fii euh, am na femelle yoo xam ne aussi toujours doomu BKR lañ femelle bu gudd bi ngay gis nii mu ngi tudd Mimi doomu commandant la Mimi Touré moo nekk nii gis nga macha allah à l'époque am na gramme bu demoon sax ba fay ci 10 millions gramme bi bañ. kii nag mooy euh, femelle bi nga xam ne doomu coma euh, koromag la bi nekkee ne la koromag moo ko jur mooy bu weex bi te nopp yu ñuul ceinture collier jaune beneen bi beneen collier jaune bii ngay gis nii doomu Ibou Fall la tëng la moom it première portem la tëgg mooy bu ñuul bii mooy bii doomu Ibou Fall la tëng la voilà so moo ko jur kii femelle boobu waaw su la boo xam ne euh, femelle yu tëb ñoo fi bëri femelle yu tëb yooyu mbay ma may wax waaw ki ngay gis nii nag euh, magu Bécaye yi la bokk kii doomu mu yaay Ibou Fall ak baro mu ngi tudd Jama yàgg na mag la de doomu Youssou la Youssou surtout tay jeune la kii doomu Ibou Fall la mu ngi nii moom it deuxième portem la nekk nii ëmb nii galactique moo ko tëb kii doomu FMI la FMI domination la waaye yaayam doomu commandant Kosso la euh, kii saw noonu kooku aussi rapido doomu commandant Kosso la moom it dafa tëbu nii kii doomu Ibou Fall la tëng bale beneen femelle bi doomu Koromag la moom it euh, galactique a ko tëb bi fi galactique ñëwoon xam nga galactique passé woon na fi 26 jours euh, kii moom soudanais la gis nga race bi la ñuy wax race soudanais gis nga génn bi ñu ngi koy métisser sax ak euh, laadum yi am na doomam boo xam ne dinaa la ko woon moom ak Koromag moo ko jur pour métissage bi kii aussi doomu Koromag la fii daal kii aussi benn setu Ousmane Ngom la mais papam tëng la mu ngi tudd Zawja gis nga macha allah ni mu rafetee waa box bi ñu dugg euh, danañ ko commencé kii nga xam ne mu ngi nii macha allah mooy box boo xam ne daal femelle yu mag ñoo fi nekk ak i quelques espoirs ak i quelques tëng femelle bi ñu tiim nii mii kii mooy Umu Kalsum doom la ci commandant ko suuf waaye kii moom dañ ko joxoon benn procureur mu liggéey ci après moom it ñu delluwaat ñu ko kii sëtu lamp fils la moomu jur ñaari ñu doon wax makki ak Karim kii doomu Nations uni la mu ngi tudd Khadija mu ngi nii am na ñu bëri nee nañ maire doomu nation yi ci la bokk mu ngi nii Khadija di pommel bu yéeme boo xam ne macha allah am na hauteur am na wet Euh, macération bu baax euh, moo juróon Donald Trump mi nga xamné mo moo faaru fekk ma première édition jëloon deuxième ci espoir yi kii sëtu séeréer la kii tëdd ni muy Aimé bu ñu waxé Aimé mu yaay Elias Elias nak ñëpp ko xam ki mo jur Elias mo jur bach bàcc mu ngi ci benn kilifa waaye Elias boobu mu ngi ci benn boy parce que moo nekkoon ci bergerie Ablaye le Saloum xaw ma léegi mu ngi fële ci Diamaguène kii doomi Poté Kiifa la maire bi euh, doomi Poté Kiifa la moom ñu ngi ko jëloon ci Badiane Wayambaan kii aussi doomi Ibou Fall la tëng bi c'est peragul sax gis nga macha allah ni mu rafetee Ibou muy def production ay mag daal ñoo fi bëri du ñu ay maget maget quand bale nañ ci wax de. benn bi la rek. dañuy def kii la ñuy wax Séenébou doomi Algor la euh, doomi Algor la mais dafa yàgg. Eh, sank sa may deug président Abou Kane jaar na fi sank mu ngi ne taw mu ngi koy jëndat temps yi parce que xamna moko moo du mu ñew récupérer wat ko waye benen pomel bi doomu ado la ado ku ko deug nga xamne moy doomu doomu euh doomu ado bi nga xamne ñu ngi ko jëlon ci bergerie bar fali lu ci seigne Galas Amina fale ci Mbacké ki nak moy costo junior costo junior costo junior bo gisé bo gisé ñu nan ko costo junior costo bu delu la rek parce que mom Ibou Fall moy bayam

Euh, yaayam mooy soudanais papam nekk laadum ñu ngi koy tuddee Déthié suñu benn gaar mu ngi noonu ci biir sax maa ngi ko fay bàyyi euh, métissage la boo xam ne euh, pur champ yu mu maaseel mun naa ne dafa leen baax parce que on président Omar Sow dafa jël race bu ne di ko boole ak laadum am na yoo xam ne nekkuñ fi am na xam ne dafa am feneen foo xam ne foofu lañ leen làqu muy ay soudanais muy ay sarole muy ay azwat di ko leen jaxase ak laadum pour autofisation mouton du c'est bon Mbaye Diène ñu ngi lay laaj euh, fii ci bergerie Khadimou Rassoul personnel bi ñaata nit la. waa Sangomar waaw ñu ngi leen di ñëpp di leen ziare sa équipe bu waa waa RTS euh, li ma laaj nag dinaa sawar tontu la ci tur parce que bergerie Khadimou Rassoul euh, ñi koy dégg bëri nañu ñu bëri aussi ñu ngi laaj fu mu nekk mais bergerie Khadimou Rassoul bergerie bu mag la boo xamante ni li muy traîner ci personnel yaatu na lool macha allah. waa ñi fiy liggéey nag daanaka mun naa la ko à peu près vingt cinq personnes parce que bu ñu nee bergerie Khadim Rassoul du lii rek parce que am na beneen xam nga beneen deuxième bergerie bu ñu yore foofu tam personnel banque mais boo dajalee lépp xam naa dinañ dem vingt cinq personnes yoo xamante ni ñëpp fii la ñuy xëy see waaw nag bi nag li ko waral tey jii xam nga tey bisu tam xarit la moo waral nag yi sax bëri fi nii mais bu ñu jàllee jógee xam nga ci kon bergerie Khadim Rassoul ci programme la ñuy liggéey tay tam xarit la mo waral nga fekk fi nak yi mais terewul tam bu tam xarit bi jalle ñi ngi wajal magal Touba ko ne xam magal Touba Khadim rasul li ci Omar saudi def lu yaatu la ay nak yu bare bare bare lañuy jëlat jëlaat di wa Touba ba tax na tam xarit bi tam su jalle terewul ñi ngi wat yenen nak yo xam ñi nga jëm Touba. fekk na fi ñetti fas ñaari mag ak benn bu ndaw. waaw fas yi moom yàgg nañ fi fas yi moom ku leen xam kii moom sofi moom suma jabar sax lañ ko tuddee moom daanaka moom fii la màggee bu weex bi waaw moo jur beneen bu ndaw bu xonk bu doom ci mooy alimatu tuddee ko suñu beneen xarit bu nekk fii aussi voilà bon vraiment fas yi moom bu jigéen bi moom bu góor bi kutunu lañ ko tuddee kutunu lañ ko tuddee suñu benn paa moo ko tuddee woon kutunu paa ñaa ah. moom kutunu lañ ko tuddee waay moom tamit macha allah waaw mais xar euh, yéen ñaata xaru tabaski ngeen di génne fii euh, par at par at su ma waxee dëgg-dëgg actuellement nii amoon la nombre exact lu ñu génne ci ay xar parce que xam nga au début bi tabaski bi di gën a jub si euh, ñu ngi woon si ay 700 têtes mais après dafay dafay dem ba jaxasoo mënatuma woon sax am nombre bi lépp exactement. voilà mais masse fiy liggéey moom loolu. non loolu mooy bañ si waa booy poñe ma nag kooku moom. Mhm. baa ñu denc ko noonu rek quoi masse salariale moom sa moom dañ koy denc. voilà waaw di leen remercier rek Sangomar kontaan nañu vraiment ci seet si bu ñuy seet si tey. waaw ñun équipe bergerie Khadim Rasoul yëpp di ko dalee ci boobu président Omar Sow ba ci ki gën a ndaw ñu ngi lay remercier yow sa équipe bi nga àndal yëpp kontaan nañ si vraiment tey ni ngi ñu seet si wey ak euh, fi am yëpp daal maanaam suñu sedd na suñu xol daal waaw xam naa ne yow suñu waay nga yàgg nañ lool macha allah boobu léegi ñu ngi koy wàcc sax mais xëy na tey la ko yàlla dowaloon vraiment ñu ngi lay remercier di la ñaanal yàlla fi ngay séntu mu gën a kawe daal kontaan nañ si yow trop jërëjëf